أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم تسليم على سيدنا محمد الصادق الوحد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين mbokki Sénégal mbokki jullit yépp ginnaaw bu ñu sante yàlla des di ko sant di julli si yonent bu tedd bi moom rahimahullahu rahmatan waasia wa salawatullahi alayhi wa sallam ñi ngi nuyu suñu mbokki murit yi di delluwaat di leen ndokkeel ci bis bu màgg bi di màggalu tubaa bi nu ànd ñun ñépp defandoo mu nekk mbégte képp koo xamante ne doomu aadama bu yàlla sàkk nga rawatina nag mu nekk mbégte ci ñun ñi am der bu ñuul si yoon bu mujjee bi vidéo bi ma posté woon maa ngi ci doom wax ne dinaa ñëwaat waxtaane ilayya xaadallahu ma yàkku ni wala yakunu abadan li mumkini yàlla may na cheikhul xadim lu mu mayul kenn lu mu dootul may kenn bu mukk soo waxtaanee ak sa xel ci may-may yooyu suñ boroom may cheikhul xadim d'abord da ngay gis message bi cheikhul xadim bu woon waxanteeg la race noire mu war a sol dàllam jëm ci dominer économiquement le monde jëm ci dominer culturellement le monde jëm tamit ci dominer socialement le monde cheikhul xadim dafa jot autorisation ci sunu boroom autorisation bi nag ñaar la benn bi mooy yàlla yëgal la xamal la grade bu mu def ci yow wëlbatiku jox la autorisation nga wesaare ko ba askan yi di ko jëriñoo de génération à génération moo tax mu wax ne ida katabtu tasaarshul baaxi wa sabaxa malaiku tibaaxi ay bindam dafay yëngal arash dëgg la faw mu yëngal ko ndax cheikhul xaddim dafa jël léppam jox sunu borom dafa jël léppam jël ko jagleel ko di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bind ak ci way ci baat boo xamante ne ñi nga xamante ne bokkoon nañu ak moom jamono gisoon nañu ne baat bi na mu daan génnee kéemaanu sunu borom la daan dalal ruuxu doomu aadama saa yu daan yëkkati baatam baat boobu mu daan yëkkati aussi di ci tagg yonent bi moo taxoon yonent bi bëreel tànk ci moom ndax bind bi ni mu ni mu taxawee ak tagg bi daan bàyyi ko ci baatam beneen bi mooy cheikhul xadim ci ay bindam su dee yaa ngi koy jàng gis ne ja soo ko jàngee dafa mel ni luy dugg ci sa biir sa euh, put ñëw di dalal sa res ak sa say poumon ndax bind bi ni mu amoon harmonie talabtali rasulullahi fawxa matlabi minallahi rabbi wa rajala min xëy bi ay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fàggul nga ma ci sama borom lu kawe sama njort te sa benn ñaan yàlla du ko delloo nga gis daaneel ya nekk ca biir ak nga gis làmmiñ ni muy def ak put ni muy def ak res ak xol ci ci wàllu harmonie ci bind yooyu loolu nag soo ko gisee sa xel dafay dem ci ñaari grade yu Cheikhul Khadim am benn bi muy anoblissement beneen bi mu am feu vert wala carte blanche dans le service al itxu ak al itlaaxu moom Cheikhul Khadim wax na ci benn baytam wax ne xaddin sarafat xaaji ila fatixi ratxi wa inni loo abdul wali jaada bil itxi mu ne sama lépp jël naa ko jox sunu borom suñu borom wëlbatiku fayee cheikhul xadim goreel ko ba toppatu ko ci dara lépp loo xamante ne cheikhul xadim def na ko neex na yàlla te def fu cheikhul xadim mi ngi yem rekk ci tagg yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam moo taxoon ba ñu ko yóbboo ci exil bi te moom moo décidé cheikhul xadim dem ci exil bi moo taxoon si yoo bi nga xamante ne moo nekkoon foofu ci Gabon te attaqué woon Samori Touré ba faagaagal ko mënul woon laal deru cheikhul xaddim ndax deru cheikhul xaddim leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ci nekk jasib bi miinoon ndox miin suuf li taxawoon mënul woon am accès wala agressé cheikhul xaddim ndax cheikhul xaddim mi ngi doon liggéeyal sangu jasib bi mu yonent bi moom saaxiba saaxibi taaj wal mihraj moom sallallahu alayhi wa sallam moom mi yàlla wax ci alquranu karim summa danaa fa tadalla fa kaana xaaba xawsayni aw adna fa awha ila abdihi ma awha ma kadaba alfuaadu ma raa afatumaaruunahu ala ma yara moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla wax wa taxsha nnaasa wallahu ahaqu an taxsha moom sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla wax ci alquranu karim wa innaka la ala xuluqin azim moom sallallahu alayhi wa sallam soppee cheikhul xadim maa ngi leen di sant mbokk yi di leen gërëm di leen ndokkeelaat ci déglu bi ñuy ànd di dégloonte di ñaan yàlla képp koo xamante ne yaa ngi nekk ci diine ci réew mi yaa ngi nekk doomu aadama bu bëgg réew mi jóg yal yàlla defal la jàmm defal ko suñu réew defal ko xalif généraux yi nekk ci réew mi ak képp kuy taalibe rawatina ñun ñii di sàkku saasu ne diine bi doon benn yal yàlla defal jàmm alxaqu min rabbikum fa man shaa fal yumin wa man shaa fal yakfur wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu